nii kili Kolda la jëm oto Kaffrine génn nañ waaw métti rek metti rek ah gasoil bi seer na yoon bi métti na alkaati faale wu dara fayee weer fayee ko sa surne foo dem fu ne da nga joxe deux mille bu ba métti ñi la junni te loolu jamonoy Macky Sall sax loolu amutoon jamono ñoo toog fi loolu gën a métti luy wa loolu ñun oto lañ yaakaati oto lañ am yére lañ mën a am lii mooy suñu intérêt bagage yi ñuy bañ liñ si man da ngay ku ñëw ca ci APS fay dagg bon yor ñaari ra lii nii rosi nga tuur nañu taxawaatul la di santa santaasat na da ngay joxe temps wala doo dem da ngay da ngay dagg rosi taxaw dagg rosi ñetti rosi wala ñeent nga dem rosi yi nga dagg nga jox ko kenn mu ne rosi yi du ma ko xool da ngay joxe wala doo dem du la daggal dara da ngay samp dem ñun transport amuñ ci dara ñun ñun yaa lañ transport ñu doon jooy Macky Sall nguur bi moo gën a métti suñ côté ñun bu dee ñun transport lañ yaakaar. un gasoil deux route nationale bi ni ñu si nit ñi di monté gendarme yeeg police yi dafa métti ñoom dañ leen di fay weer ñun li ñuy liggéey pour war ko yóbbu day leef ci bu yóbbu weer ciment dañ koy lekk ba mu jeex balaa ñoo yegg am na njëriñ est-ce voilà lu moo ñu sonal. client li ñuy kaas moom la ñuy kaas ndax ñun bu yombul si ñun du mën a yomb si client balaa client di yombale ki koy yóbbu yombale dañoo wax ne dëgg li ngay yóbbu yombul ah du mën a yombal li ngay yóbbu mooy problème bi bu lépp dafa yomb ñun sàcc ñu fenuñu liggéey la ñuy def. sa biir liggéey dañ la siy xoñoñal ba nga ne yow mi da ko war a bàyyi sac sàcc yi te Sénégal métti na trop trop sëni Sénégal ba ñu ñoo liggéey de ah. mais ku am nday ak moo fi ne euh, mu bàyyi ñu xel gestuñu ndax ay ndaw lañ nangu nañoo liggéey kenn dugaluñ ci benn problème waaye kon nañuy dimbali yoon bi mettina na yoon yi métti gaasuwaal bi seer na amuñu benn jàmm yoon bi tene na rek waaw côté boobu moom bu dee tali bi moom wax dëgg fa yàlla naaj tene na waaye nag bu dee poste yi ñoo bari boo déparé fii balaa ngaa yegg mbuur di nga joxe quinze mille franc yoo xam ne nii si yoon bi la waaw te yegg mbuur rek nga laa la wax doo génn mbuur gendarmerie ak police yi ba ni nga yeggee Kaolack ba ni nga jëmee Kolda bu dee Kolda nga yegg ba ni nga jëmee Kaffrine boo yeggee boo génnee sa bilan nga xam ne dagg nga say reçu ba pare da nga génnee fere quarante cinq mille wala cinquante mille te bokkul ak gasoil bi ngay sol oto yi cinquante mille ko kafin fukki junne boo ko soloon ci oto bi ni doo dem nga bëgg léegi nga bëgg ñi da nga wàññi sa paas doo teg bagage si kaw kon kay ba yow ñu bàyyi transport ak ñoom ñu xëy toog ñu ne doo teg bagaas ah deux yoon bi métti na loo si man fi mu toll nii bu ñu départ yem nii. billaay wallaay bu ñu yeggee lu ñu ciy dese. li ñuy joxe si àll bee ko ëpp foofu metti na trop suñ côté amuñ ko ñu ko jooyal nag ndax suñuy njiit dañoo jaaxaan di def lu leen neex doxuñ ci dëgg. waaw kayit yi nit ñi ñi ñi dugalante waaw man sama kayit yi boobu ba léegi maa ngi koy lijjanti manuma fexe ba am dante lool nag li ma gën a naqari ci réew mi loolu ci la bokk en tant que chauffeur sama permis baa ngi nii tëdd maa nekk ancien chauffeur golwaar chauffeur mën a dawal te man maa am permis bu baax permis baa ngi nii ma denc. loolu nag moom li ma gën a naqadi ci réew mi moom loolu ci la bokk moom samay kayit yi nañ ma ko defaral ma dem liggéey ndax moom ma kale maa ngi yor parking oto amul permis bu baax ak tabaski bi nii gars yi waxoon dañuy lijjanti kayit koo si jox mu lekk sa xaalis waaw dem ak moom nan la ay waxi saret waaw loolu daal moom réew mi daal moom nañ taxawaat dëgër jéem a seetaat sampu tubo yu baax waaw yenn kii yi nag moom ñu seetaat ko bu baax gasoil bi ñu seen nuñ ko yombale ak engrais bi engrais bi bu yombee rek maafe mi yomb waaw waaye yi des yëpp bu jafee rek àll ba moom te àll ba mooy yore saalum waaw àll ba moom daa métti waaye bu engrais bi yombee loo bay mu barkeel yàlla def si jàmm clients fii dañuy ñëw paas bi daa seer boo waxee ñu ne gasoil bee seer dañuy wàññi tuuti yokk tuuti waaw gis nga ko ñun ñu ngi nii da ràllu amuñ sax bu dëgër dangay ngay xëndoo fudd bagage bi ba ngoon jot ñu jox la téeméer ñaar fukk nga dem ñibbi en tant que chauffeur te ñu fi nekk ñëpp nga am kayit amul luñ dawal mhm. lool moom dem leen ba sa jumaay ngeen wax ko na ko mu ñëw fii ci arrêt mhm. waaw ñëpp fii yëpp ay chauffeur fi nekk ay ancien mhm. mais boo ñu lebalee ci banque bi sax ñun ñu fay waaw mais loolu yëpp gars yi dañuy wax dañ koy def te duñ def dara ñun ku ñu lebal oto ñu fay ko barki mu amet yoon bi neexut waaw yoon bi neexut ndax mooy loolu foo dem ñu arrêté la nga taxaw li ñu war a def daal poste yoo xam ne da ngay àgg fay dem loolu mooy gaawal yoon bi poste yoo xam ne da ngay fay dem caajaay dem Fatick dem Sandiara foo dem oto yaa ngi ci roon garab yi léegi nag danga war a am ay poste yoo xam ne boo àggee rek da ngay def li nga war a def avancé doo fekkaat keneen ci giges wala ci ay kaasiya waaw loolu wasalaam loolu mooy wax ji waaw sénégalais yi ak fête bi xaalis amut xar yaa ngi nii dafa seer man sama xar yaa ngi nii lambu waaw dara amut waaw xonte bi seer na da ngay jéem a débrouiller pour jéem a am dara mais dangay dem ba ci biir mooy loolu affaire sa yaakaar ju tas daal moom moo bëri Sénégal gii man na maa ngi nii toog sama kayit yii ma leen wax leen sama transport bi laa bëgg ngeen lijjantil ma ko mu pare bu ngeen demee jomaay na ñëw ba si arrêt bi ma wax ko li ma ko bëgg a wax ndax réew mi dafa am côté bu muy doxee ak côté bu mu du doxee engrais bi nag moom bu yombee maafe mi day yomb engrais bi nag bu seeree dara du dox affaire réew mi nag il faut ñu jéggalante balante ak ndax yàlla moo ñu ko boole te kenn mënu ko séddoo bàyyi sa morom kon il faut ñuy def bin bin bin bin bin bin bin bin waaw